yaa ba may kuul. yaa gën a baax. <laughs> yaa ma gën naka kay. tey de ñëw nga arène nationale. waa ñëw na arène nationale. yaa ki nga xam ne moom mooy ndongolo. waaw sama adversaire la. waaw ñu war a bëri le 26 juin incha allah. waaw incha allah. pare nga. yàgg na. tamit xam nga ma. ndongolo mi jaaxalul ci côté bëre. billahi jaaxalu ma. ndongo. si lim bi la bokk rek. koy limbaale. dama koy door daanu incha allah. wax gaaw na de. dama mu daanu incha allah. loolu yombul. dama koy dóor mu daanu. comme dab rek yow sama combat bi fekkoon nga ko de moom laay continuer ba roi des arènes allah. dóor mu daanu dóor mu daanu ba roi des allah. yéen ku dàq bëri. man amul ku ma dàqul bëre loolu waxatuñ ko bàyyi loolu noonu affaire ku dàq bëre yow xamal xamal nga loolu sa bopp fu fu bëree dinaa bëre su bërewul dinaa bëre. xeexee fu xeexee maraak waaw. seex. seex sa yaram tàng na de. waaw loolu yow. waxatuñ loolu. yow xam nga wala boog yow xam nga naka ñoo joor. ah waaw borom ñoo borom sirmang borom ñoom baadoo borom dun. Ah, waaw wa nu mu affaire nu way wa nu mu demee ti. ah. way lay wayal. waaw. ah muy loolu rek. way wow laa bëgg nga wayal ma ko man. non jégal ma ko nag. jégal ma ko jégal ma ko suñu yaa reto ma ñoojoor waaw mana seeti jaan rek mana seeti jaan <laughs> waaw waaw bàyyi loolu mu seeti waaw di woo ñëpp waa u nekk Espagne sama mbokk yi nekk Espagne ñoom Eto waaw gars yi foofu ñoom David Luiz ñoom Tapade ñëpp maa leen di woo ak ñi ma limi ñoom Océan ñëpp maa leen di woo ñu jàpp si combat bi Seko ñu mobiliser wu foofu quoi comme dab waaw di woo sama mbokk séeréer yi ñëpp waaw képp ku àndoon ak o séeréer rek mais na combat fa ne o garo andun fop me xoyanen ku andoona ga o fa yaag o bo a ñojoor limanga rek juum a juum jon waar fa liya ɓasul jinda joxaan a fop me xooya ne ngarna combat fane inchallah i seexango ok Bab di wo wa Gambi nak ñoom zaga liigi laaga zaga liigi laaga na indi mafia nekk bara jala geej waaw nañ ñëw quoi inchallah ak waa Diosone ñëpp nañ ñëw waaw ok combat bu neex bu neex neex yan nañ si yàlla may ñu dugg si bisimilahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabil alamin te ñu ñaan yàlla Babacar ñu fekke tattal ko loolu rek si am solo te yal nañ ko fekkee tattal amin amin incha allah waaw si diggante Cheikh Tidiane Niang Ndongo Lo lu may wax rek jël amateur lutte simple ak amateur lutte avec frappe boole leen kon loolu ku ko dégg ku ne dara war la mën a téye si journée bi incha allah. mel ni xam na lamb kon xam na li muy def. mais mooy yoon sax parce que ñun dañuy yàgg suivre lamb yàgg ko seetaan. kon nag war nañu mën a xam yoon bi te kenn duñ ko jàngal dañ siy sant yàlla rek lu may waxaat rek incha allah bis bi naa lépp yàlla suñ borom na ma defaral lépp comme ni mu ma suturaalee woon fii le 12 janvier na ma suturaalee noonu sa sama journée bi Cheikh Tidiane Niang Ndongo mu àgg si eh, jàmm ak salaam incha allah. waa xam nga journée yi dañu xat man maa ngi ñaan yàlla suñu borom ñaar ñi ku si daan ku ne mooy waat sama beneen grand combat incha allah si kàttanu suñu borom. kontaan ci maa la gën a kontaan ba ak sëñ Fallou. ay balla joo moom lay sago daanal ba dem naa

maa ngi sant bu baax a baax. ndongo la Cheikh Tidiane loolu du risque pour yow. lamb ci biir lamb yi dama bokk ci lamb gars war nañu xamoon man dama bokk ci lamb. am na bëri dañ ne da ngaa jël parce que kooku mbaru mbapat la ma see su ci arène. yàlla ñëpp la fi nekkal. di ñaan yàlla may ma ndam ci combat bi. yéen ñaar ku dàq bëree. yàlla baax na. nga xam ne lépp dëgg la incha allahu ku dàq bëre. yàlla baax na ñoo ko bëre fuuf. ku dàq ak Cheikh Tidiane ku dàq bëre. baal ma bis ma. Cheikh Tidiane ñaa moom li wax dafa leer. nee na ma coow lay bëri mais da lay nga daan. wallaay moo ko moo ko wax. ndam ko yor. dégg na da lay dóor nga daan. waaw yow xelam na rek. loolu xelam la xalaatam la entraînement am la bujur ba c'est lépp di leer kii la vrai Ndongo Lo yow mës mës laa dóor nga daam yaa nga saan sama làmb yaa nga saan sama làmb kuul bu kuutam jël naa ko bëre moom moom moom danga koy def bëri ma jom daan xalaatam la yaram yaram ma ndam autorité yi nga xamante ne ñoo demoon nañ ñëw jàppale ma làmb xale koy def yaa seex ku mag. xoolal rek damay laaj. man 95 laa. 95. te xale nga bu ndaw. ren. dans la main. laa koy wax. dans la main. li ma mu mun a ma ko dans la main. mu taal loxo ma jël ma yor. bañee. foqati ko kii mooy Boy Niang bu Malika moo war a bëre spécial Ndongo Lo ak ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Niang gaaroo gaar la war a bëreel nag gaaroo gaar ñëwul tey mbër maa ngi lay bëgg waaw bisimilah ginnaaw bañ sant yàlla julli séente bi sant suñu ñaari waajur di sant ñiñ fekk si stade bi yëpp waaw di sant yàlla bu baax di sant waa Malika bi nga xamante ni fa laa ko bu baax waaw di di gaar bu ñëwul tamit xam nga xaw ma lu ko téye quoi yàlla na nekk jaam ak salaam rek bu ñëwul fii jour làmb ji dina ñëw incha allah waaw dinañ daje jour làmb ji mais ma laaj la benn affaire comme ñëwul li nga gis say support booy yi di ko def ci arène bi buñ la daanee say supporters yàq boo daanee say supporters yàq est-ce que loolu dina tax yéen li ngeen bëgg ci làmb ngeen am ko. non ñun biñ ko gisee nii dañ ko ñaawlu dañ ko ñaawlu quoi parce que ñun làmb du affaire violence. yaa ngi dégg du yoon ñuy damm saisi ndax saisi xam nga ñun ci la ñuy toog quoi esaat bu ne xatal nañ ñu fa lii ñoo ko moom xam nga dañoo war a bàyyi ñu gérer quoi ndax làmb ji bi ñun bëri métti na si ñun torop mais ñun moom ñu ngi doon sant ndax ñu ngi joob quoi. waaw di di ñaawlu loolu trop daal waaw di wax supporters yi ñu bàyyi loolu. kon daal rendez-vous bu le la yàgg gaaroo ga vingt 26 juin incha allah di woo waa Malika waa Kolda waa Casamance xam di woo waa waa Guinée Bissau sama dëkk maam di leen woo si combat bu baax di leen wax seen doom moo xewle bis bii nii dafa am fu ñu yóbbu quoi waaw di di ñaan yàlla ndam nag di ñaan yàlla ndam bu wér. di woo waa waa marché Thiaroye di woo sama patron Mor Kébé di woo si combat bu baax a baax di woo ñoom Ablaye Diop xam nga ñoom alfa ay see Pastef di woo ay see yi nekk Malika yëpp waa di leen wax seen doom moo xewleeti ñëw leen jàpp yëngal si kaw ma tàngal ci suuf yàlla def ndam incha allah la deme